تقديمه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوكي جولدي غناو بنو سانت يالا سونو بوروم جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نيغي لين دي نويو di ziarah, dilan di len dokel di weru dokel ci wéru tedd wi ñu nek waye di len dokel ci bis bu màgg bi ñu muy bisub aljuma di ñaar fukki fan ci wéru koor ci atum junni ak ñent témèr ak ñeent buk ak ñett ñaar fukki fani koor nak ku ne xam na ne moy bisub daje ba liggéey katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak liggéeykatam bu mag ba mooy bisub ñaar fukki fan ci weeru koor ñaan sunu borom mi nu may wér ak tal ak xéewal ba nu tàmbali ko ba mu cate yal na nu yàlla dolli wér ak kàttan ak tal ak xéewal ba nu mottali ko te sunu ko mottalee yal na nu ko nangul te su ko nangoo yal na nu may nu teewee ko at yu bari waxtaan wu ñuy def ci koor nag xam naa dañuy sof rek waaye bokk yi nga xam ne toog nañ fi ajjuma yi weesu lu ci mat a wax daanaka waxoon nañ ko dama ci sof rek di fàttali sunu mbokk yi ne lele lele ñam ci waxtu wu ne la baax waaye koor moo ci raw weeru koor yonent bi nee na sallallahu alayhi wa euh, ku leel nit ku woor da nga am yool tol ni ab yoolam moom ma woor lañ koy fay ci koram dañ lay fay ca leel ga nga ko leel yool bu toll noona mu wax ne man fattara saa'iman kaana lahu euh, mislu ajri gayra annahu la yanqusu min ajri saaimi shay'a nee na takat lañ lay fay du wàññi ci ak fayam dara bam ko waxee saxaaba yi ne ko ku amul loo lelee koor nag mu ne leen yuti llahu hada sawaaba man fattara saiman ala tamratin aw ala sharbati main aw matkati laban mu ne leen tuyaaba ji yomb naa dabu ndax soo joxee ko woor tàndarma ju mu doge yàlla jox la tuyaaba ju tol ni kooram nga jox ko ndox mu ndox mu ñuul yàlla jox la tuyaaba ju ni tol ni kooram nga jox ko euh, lu mu naan loo xam ne du ndox mu ñuul nekke soow yàlla fay la tuyaaba ju tuyaaba ju toll ni kooram kon nag lele waxtu yëpp la baax waaye weeru koor da ci raw kon ñi ngi koy fàttali ñëpp di ko fàttali ndaw ku ndaay nañu gën a laxasaayu ci joxe ñam ci weeru koor bokk na ci li ñuy fàttali mooy weeru koor weeru nangu ñaan la rawatina boo demee bay dog boo demee ba dog Euh, loo yàkkamti yàkkamti dog nang fa dékk yàlla say loxo te soo koy ñaan bul tuuti bët bul tuuti bët na ko ñaan euh, lépp lu baax ci àdduna ak alaxira ndaxte yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam li saaimi inda fitrihi daawatun la turad nee na aji woor fa muy doge bu ñaanee suñ borom du delloo ak ñaanam maanaam dana ko nangul ak ñaanam kon ñaan gi ñu ngi koy fàttali sunu bopp di ko fàttali mbokk yi bu ñuy dog na ñuy dëkk yàlla suñuy loxo di ko ñaan te bu ñuy ñaan bu ñu tuuti bët euh, te nag di teel a dog di yeex xadd teel a dog ginnaaw bu jant sooyee yeex xadd ginnaaw euh, balaa jant balaa balaa janta fenk bala ñëw salaatu loolu tam dañ koy fàttali di fàttali itam ne téye sunuy cër yëpp ci naka sudul noona waxtu wu ne la war waaye koor da cee gën a feddliku soo wooree rik ni nga téye sa loxo ba doo lekk doo naan na ko sàmmi say cër yëpp cër yëpp na woor ni ni biir bi woore na ko cër yëpp woore ndaxte su cër yi wóorul da ngay xiif ak a mar euh, aka a sonn te koor ga du jariñ dara ndaxte yonent bi nee na sallallahu alayhi wa ku bàyyiwul wax naka sudul noona ak di jëf naka sudul noona sunu borom amul soxla ci xiif ba ba muy xiif ak mar wa muy mar dafa wax ne man lam yada qawla zuuri wala amala bih fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaaba moom la ku baax ci wax ne fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi nee na woor daal mooy cër cër yépp woor ci lépp loo xam ne da yóbbu ci naka sudul noona waxaan na ci beneen xadis ne ku ci woor euh, bu mu wax mboosóor bumu coow bu mu tàppaas kenn bu mu saaga te ku ko tooñ bu mu fayu na jéggale te xam ne dafa woor ida kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasxab fa in shaatamahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni saaimun inni saaim kon ki woor bu ñu la tooñee na nga jéggale ne dama woor bu ñu la tàppaasee na nga jëllale ne dama woor bul coow bul mboosóor loolu nag sooy génn ci dëkk bi dem ci jabi dem ci garage yi da ngay gis ne li ëpp ci ndaw yi du ñu sàmmonteeg loolu euh, ña ngay wax naka sudul noona ña ngay defante naka sudul noona ña ngay tàppaasante ña ngay saagante ña ngay sax jàppante da nga gis ñuy jàppante ci koor ñuy jàppante ci koor nag euh, defuñu santaane sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ab jullit warta jàppante senn saa waaye koor nag moo ci raw te bu ñu nee ab jullit moom ab taali bi dañu ko jëllale bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci koor mooy dundal ko ci jaamu yàlla ndax wenn weer la woo xam ne su jàllee xamoo bu dëlsee da nga ko fekke wala soo soo ko fekkee ndax da ko tal moo tax Euh, kenn waru ko sàggane ndax nit ki euh, waxtu yi mu am euh, di ko noyyi muy fi mu juddoo ba fi mu génn àdduna na xam ne gànjar la koo xam ne lu ci ñàkk dootu ko mën a dabu loo ci ñàkk dootu ko mën a dabu moo tax ku baax ke wax ne nit ki nay saxoo saa ne di jël ci waxtoom di ko jox yàlla di tudd yàlla di sabal yàlla ndax soo neenalee say waxtu ba defoo ci lu am njariñ su ëllëgee aw naqar ak njàqare aku tiis rek moom la lay yóbbe man lam yudim shay'an min al awraadi mudaya al waqti ala tamaadi fala lahu yu yujaaza annaasu illa garaamun wa jawan wa baasu yàlla nañ ci yàlla musal bokk na nag ci li ñuy dundale waxtu mooy tudd yàlla di tudd yàlla nit ki bu mu toog rek eh, ci loxoy neen wala yii xew léegi yore téléphone di ci yandu di ca fanaan day sànq ak dund nit ki na fexe ba yi am njariñ mu di ko jëf di ko wax dara ëppul njariñ di wax la ilaha illallah ku baax gi nee na wa afdalul aqwali fi lmarami kalimata shahadati l kon yor sa kurus naan laa ilaha illallah laa mën na laa yóbbu fu kawe kawe kawe man ngay waxtam bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim من جاي وخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من جاي وخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دي وخ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جيغلو يالا سونو بوروم فو تولو دي وخ تام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اك يوني ديمي موم لا كو باخ كي دي وخ نان wa azzamu basmalatan wa xawqala takbiratan azbalatan wa xamdala qul wa salaatun wa kadaka xasbala wa misluha istigfaaratun muttasila kon foo toll di jéggalu yàlla di ko tudd di ko saxbaal soo ko defee doo sànq sa dund te xadis ba waxoon na ne am na ñaari baat yoo xam ne soo koy wax ci saw làmmiñ day woyof toy day yomb lool te su ëllëgee buñ ko tege tegee ci balance buñ ko dee peese day diis gann te mooy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyul azim bu ñuy tudd yàlla nag la ca gën a kawe mooy jàng alquranul karim kon ab jullit rawatina ab taalibi na fonk jàng alquranul karim bu dul ramadan sax da ko war a fonk waaye ramadan da cee raw di jàng qasida di jàng qasida jàng alquranul karim nag moo gën a kawe lépp lu ñuy jàng mooy li nga xam ne xaraf woo jàng ñu bind la ab yool wala aqulu alif laam mim xarfun walakin alifun xarfun wa xarfun wa miimun xarfun kon ngay jàng alquran foo tollu rawatina ci ramadan soo ko dee def doo sànq sak dund xam ngeen ne alquran nag euh, téere bi yàlla la boo xam ne yàlla defal na ci ku baax kii ay ndam ba fii ba fii ñu nekk jeexeeti ab liggéeyam ak ak jeexeeti ak ñaanam saa suñ xëyee di ko gis xam ngeen ne bu yàggul rek am na jogante yu xewoon ci réew mi ak bitim réew tout tànk ya fa teewoon ña ca ëpp euh, dëkk te dëkk ci senegal ña ca ëpp fii la ñu bàyyi ko loolu nag day jeexeeti liggéeyub ku baax ki waaye itam day jeexeeti euh, ñaani ku baax ki ñaanam gu nangu moo ci feeñ kon nag ñu ngi ko ci ndokkeel lislaam bépp waaye di ci jiital sunu kilifa gu mag gi di ko ci ndokkeel ndax ndamul lislaam ndamam la la liggéey bi itam ndamam la kon nañu fonk ñaan rawatina ci ko su koor jotee nañu fonk tudd yàlla rawatina su koor jotee nit nag suy ñaan day fexe ba di moytu def naka sudul noona di lekk lu lew di naan lu lew di wax lu rafet moom la sëñ bi naan aadabuhu tajan tajannubul xaraami fil akli wa sharaabi wal kalaami soo ko defee ngay def lu baax soo defee lu baax ba yeggal nag dëkk yàlla say loxo ñaan ko wastaxsanu taqdima saalihi al amal euh, summa al wudua summa tathirul mahal su ko defee nit ki nekk ci weeru ramadan di woor na xam ne su amee ngant lu ko yàlla Euh, wàcce na wàcce boppam yàlla su la yenee da ngay yenu waaye bu la yendee nag dangay ngay yendiku yàlla yen la nga ne duma ma ëpp naa def boo ko defee tooñ yàlla waaye yàlla yendi la nga ne du ma yendiku soo ko defee dangay ngay tooñ sa bopp moo tax nit kuy tukki te tukki farata euh, tañ may ko mu dog mën naa dog wàññiwul dara euh, Anas ibnu Malik nee na mës na ànd ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalam di tukki am ci tukki ba ñu wor am ñu worul waye neena ñawor waxul len dara ñaworul waxul len dara kon nak so amé ngant ci ramadan lo xamne mayna la nga dok so doge def nga ndigal so woré tam def nga ndigal ki nga xamne dafa wéré di momitam euh, may nañ ko mu baña wor kon ki mënul na xam ne mënul boo dee man di jëf ba mënutoo sa jaan wàcc na ki wéri di nag ñetti nit lañ am na ko xam ne ñëpp xam nañ ne mënut woor ñëpp xam nañ ko kooko dog moo gën ci moom am na koo xam ñëpp xam nañ ne mën naa woor ko gën ci moom am na koo xam ne nag su wooree dana metti ci moom waaye mën na ko kooko tam dog moo gën ci moom kon kii tukki sañ naa dog ki tawat sañ naa dog soxna si nga xam ne tànkam dafa diis moom itam sañ naa bañ a woor yàlla moo ko ko may soxna si yortu tànk di ko saytu itam sañ naa bañ a woor yàlla moo ko ko may ndax xadis ba nee na inna allaha azza wa jalla wadaa an almusaafiri alsawma wa chatra alsalaa wa an alxubla wal murdii alsawma nee na yàlla teggil na ci tukki euh, koor euh, ak ak julli da koy wàññi day wàññi julli te bañ a woor moom mi tukki waaye soxna si tànkam diis na xam ne may nañu ko mu bañ a woor ndax yàlla da ko bëgg sàmmal bakkanam sàmmal ko itam lam ko dénk kii saytu tam tuut tànk may nañ ko tam mu bañ a woor ndax yàlla da ko bëgg sàmmal boppam sàmmal ko it lam ko dénk waaye ki nga xam ne day saytu tuut tànk nag su wóorul na xam ne saa bu ñu wooree buy fay da koy booleeg fidyatu mooy saa bu xëyee day jël sarax jox ko miskiin màggat mi nga xam ne tam dooleem jeex na liggéey na ba wàcc jot ci moom euh, dafa war a dog ndax euh, boo manee ba mënutoo da ngay xam ne mënutoo ndax euh, yàlla moo la wàcce su boobaa nag da ngaa war a dog te boo bu dogee tam du fay màggat mi jeex tàkk bu dogee du fay waaye sopp nañ nag mu jotu sopp nañ mu jotu mooy gannaaw moom munta woor sa bu xeye na wut lu mu jox miskin soko amé soko amul wacc nako ki yaram tam te kenn amutul ci mom yaakar nga xam yalla rek lañuy nekk ci mom koko tam mok magat mi ñoyam koko ko koor wacc nako man na baña worati ki nga xamne tam su woré day xam mënta muñ xif wala mënta muñ mar ba day euh ñu ko ci kat yi kat yi xamne ki atunul koor fajj kat bu ragal yalla bu am xam-xam su boobaa kooko sañ naa bañ a woorati ndax wàcc na ko ndax yàlla du teg kenn lu mënul laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha ki nga xam ne tam dañ koo gaax dañ koo ga mooy forcé dañ koo forcé am na réew yoo xam ne dañ fay néewal doole lislaam ku fa nekk di ab jullit dañ lay néewal doole ñu fab ngànnaay teg ci sa bopp ne la dogal wala ñu rey la su boobaa na nga xam ne dog moo gën ci yow saa soo manee fay nag danga ngaa war a fay yooyu ay tomb la yoo xam ne dañ koy sof ci waxtaan yi nga xam ne sunu bokk yi toogoon fii mu yi weesu ñoo ko doon waxtaane la ca tege moo di weeru koor képp ku ci am bor su jàllee rikk na nga ko fay balaa koor a dellusiwaat ndax wax naan léegi ne xamoo ba xam da nga fekkewaat koor wala déet te atte bor fay atte bor fay boo amee lee bor koo xam ne nag sa bakkan mi ci loxoom saa su ko neexee mu jëli la fi kooku kay boroom da nga ko war a gaaw a fay soo ko fayul nag fayoo ko ba barax lu jot nag su boobaa nag amatoo lay nag danga ngaa war a laxasaayu fay ko boo ko fayul nag ba ramadan dikkaat nag ah, bor ba du la wàcc te itam jotu da koy booleeg jotu bis boo fay da ngay jotu mooy da ngay wut loo jox miskin kafaara itam xam nañu ne képp ko dogte tey ko xotti war may ramadan te amoo wenn lay wu ñu mën a xam kooka moom itam dafay def kafaara te kafaara lu metti la wooral yàlla wenn woor wenn weer moo gën a noppale di woor ñaari weer aka euh, leel juróom benn fukk miskin loolu noppaliwul kon nag di dog ta tey ko dara jëru ko bu loolu jàllee euh, li'tikaaf itam nañ xam ne ci sunna yi gën a feddliku ci la bokk li'tikaaf mooy su matis na koo def ramadan ak nag lurul ramadan li kaaf mooy nga dem ci jàkka jàkka ji bu nekkee sa kërit na doon jàkka joo xam ne ku mu neex ñëw julli waaye doo doon jàkka ju doon nekk ci sa biir néeg rek nga def ko jàkk waaye jàkka xam ne ku neex nga ñëw dugg julli fa la ñuy defee li itikaaf li kaaf nag mooy nga dem ci jàkka euh, moo koor ñooy ànd bu dee ramadan euh, kon da ngay woor budul ramadan it da ngay woor li kaaf dal kon ci jàkk lañ koy def te gën jaa néew bëccëg ak guddi lay doon mooy gën jaa néew mën na ko ëpp nag mën naa doon sax ayubis wala fukki fan su boobaa nag na nga xam ne sa kër doo leen jege doo jege sa waa kër kon kii at atikaaf du jege waa këram kon benn ci jàkk lañ koy def ñaar lu mu néew néew dana mat bëccëg ak guddi ñett mooy doo jege sa kër ñeent mooy da koy boole ak woor moo xam muy koorug ramadan wala du koorug ramadan weeru koor ni tey boo demoon màkk wala madina ñi bëgg a def li atikaaf li atikaaf dañuy ñëw ci jumaa ji bindu ñu def leen ci liste su ko defee ñoom ci jàkka ji lañuy yendu fa la ñuy fanaan euh, duñ dem fenn bu ñu amee soxla nag dem doxi ko dellusiwaat ci jàkka ja xam ngeen ne ñi miin euh, nekku Cheikh Mouhamad al Mourtada yàlla na ko yàlla dolli leer fukki fan ak fukki fan yu mujj ci ramadaan da ko daan fatu ña xam kër ga boo demee ñu ne sëñ bi mi ngi ci jàkk ji loolu mooy li atikaaf muy lu yàgg nag ndax yàlla waxoon na ne wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahira baytiya li taifina wal aakifina wa rukai sujud waxaat na ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fi l masajid kon li atikaaf mënta ànd ngay jege sa waa kër soo defee nit ki nag li itikaaf ci jumaa ji su ko defee wala jàkk ju mën a doon la muy soxlawoo rek mooy jàng jàng alquran wala xasida wala tudd yàlla ak a wérd du am daal genn jot gu muy waxe waxe adduna wala muy jëf-jëfi adduna li na nag gannaaw ñi ngi ci weeru koor nekk ci fukki fan yu mujj yi dañ koy fàttali ndaxte soxna Aysatu yàlla na ko yàlla dooli xéewal nee na ku tedd ka su fukki fan yu mujj yi mosaa ñëw daawul nelaw guddi guddi gep da koy dundal da daan tam soñu wa kërëm la laxasaayu da daan laxasaayu soññ waa këram nee na kana ida dakhala al ashr al ashr al awaaxiru min ahya al layla wa ayqadha ahlahu wa shadda al mizar non la daan def mom yunus bi alayhi salaatu wasalaam kon la itikaaf ñu koy fatali suñu bop diko fatali fàttali mbokk yi ñu xam ne ci yiñ gën a taamu la ci weeru koor kon nag su ñëwatee ku ko man na nga ko def gën jaa néew benn bëccëg ak genn guddi euh, bu la neexee nag nga def ko ñetti fan wala ayu bis wala buñ ne ñaar fukk ak benn nga tàmbali di ko def ba ba ñu weer feeñ na ndax sëñ Mourtada sëñ Mourtada noonu la daan def yàlla ko yàlla doole xéewal ak leer laylatul qadr yi tam nañ xam ne ci guddi gii la nekk o ci weer wii la nekk muy guddi gu tedd guddi gu màgg guddi gu barkeel ndax yàlla guddi gum wax ne moo gën junni weer guddi gum wax ne malaayka yi dañ cay wàcc guddi gum wax ne malaayka yi bu ñu wàcc lu ne la ñuy àndaale guddi gum wax ne jàmm la guddi jàmm la ba fajar jot googu guddi mat naa taxawee inna anzalnahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun xi xatta matla al fajr kon laylatul qadri ci weer wii la nekk laylatul kadri dañu ko dëxëñ ci weer wii ndax sunu borom xam na ne li ëpp ci jaam ñi dañoo bëgg lu yomb dañoo bëgg lu yomb dañoo bëgg jàppandi euh, dañoo néew doole dañoo tayel buñ ne woon waxtu sàngam la rek kon ñëpp dañ koy dàkk du ñu góorlu ci beneen bis bis booba rek li ñuy góorgóorlu bu jàllee itam ñu ne ñu ne yàcc rek euh, góor góorlu moo tax nag ñu dëxañ ko ci weeru koor dëxañ ko ci fukki fan yu mujj yi buñ ko dëxa dëxañoon ci at mi ba noppi ne na ko ñëpp dàkk muy coono buñ ko dëxamu dëxañoon ci juróom weer na ko ñëpp dàkk muy coono buñ ko dëxañoon ci wenn weer na ko ñëpp ñëpp dàkk muy coono ñu dëxañ ko nag ci ween weer daxañ ko ca fukki fan yu mujj ya nee nañ ko fa dàkk te sunu borom euh, loolu lu muy faral di def la mooy dëxëñ mbiram ca ca la ko soob ndax nangu ñaan waxtu wu ñuy nangu ñaan da koo dëxëñ ci ajuma am na wax ne gannaaw tàkkusaan la waaye am na waxtu woo xam ne képp ku dëkk yàlla ay loxoom di ko ñaan te dajeeg waxtu wa suñu borom day nangu sa ñaan am na ñu wax ne gannaaw saan ci àjjuma la am na ñu ne nag ci ajuma rek la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 أشهد أن محمدا رسول عليها السلام حي على السلام حي على الفلاح kon guddik laylatul xadr dañu ko dëxëñ ndax bëgg nit ñi góor góorlu bëgg ñu di ko dàkk suñu suñu boroom nag da koy faral di def waxtu wu nangu ñaan da ko dëxëñ ci bisub àjjuma li ñuy wax da koo dëxëñ ci biir turam yi ngërëmam da ko euh, dëxëñ ci jëf yu yiw yi mooy jëf yu yiw am na jëf ju yiw joo xam ne soo daj soo ko jëfee rek am nga ngërëmul yàlla doomu aadama itam sunu borom dafa dëxëñ ci ñoom ay dencam nit ñi yàlla dafa denc ñoom ay dencam moo tax ku ràññee wala nga góor góorlu am yar am teggin rek man nga am lu baax ndax koo gis rek da nga fonk bare barewaa na koo xam ne mën naa mel melokaan wu xaw a doy fekk ma nga fees fees dell boo ko tooñee rek yàqu man nga yàqu tey ak ëllëg boo ko euh, fexee ba xolam sedd gërëmloo ko rek sa lépp jàkk sëñ bi nee na laa taxqiril abda li qubxil malbasi maa taxaddudin wa kusiri danasi id rubadi taxaddudin xadim tala nuuran wa sirran min ilahin qad ala nee na bul xeeb nit ngir mu woyof woyof rek mbubb ñàkk solo wala mu tilim ndax am na ku mel nona te fekk ma nga fess del ah, soo ko joxee cëram rek man nga defaru waye boko togn man nga ngaa kon yalla day dexeñ mbiram wante ku tedd ke neena na ngeen sakku leerul qadr ci fukki fan yu mujjii ci guddi nga xamne dafa tool guddi yu tool yi kon bis ni ko tey muy guddi ñaar fukk ak ben ku farlu dang ko ci lamb ñaar fukk ak ben guddi ñaar fukk ak ñett guddi nyar fuk ak juróom nyar ñaar fuk ak juróom nyar guddi ñaar fuk ak juróom ñeent guddi yi ku farlu boko ci lambe dang ko daj kon nañ ci gëna gor gorlu bu baaxa baax murum ko rit buñu démé ba koor gi dess ñetti fan mënes ta ko tambali diko génné bob bu ne nga génnel ko ñaari kilo ak genn wala bu dé dugub wala ceeb wala nga xayma ko muy xaalis nga jox ko ñi nga seen loxo jotul seen te def ko xaalis ci jamono ji borom xam-xam yu bari nañu mo gëna noppal ki koy jox ndax bisub eid l'islam bëggul kenn kenn kuy wër sappi yor aw yet nan mastata bëggul loola dafa bëgg kenn ku ne am lu mu japp kenn ku ne kërëm neex kenn ku ne sopp ciin soppi ciinam loolu ñu bëgg ci bisub eid kon nak nañ ci goor góorlu te xam ne ñëpp la war góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp la war kon soo amee njaboot na ko génneel ñëpp koor nag bu ñu koy def dañuy fàttali démbi lislaam dañuy fàttali ni lii ñuy def moom la ngeen ñi muy def daan def ak saxaaba yi lii ñuy def taabi'oon yi moom lañ daan def lii ñuy def sëriñ bu mag bi moom la daan def ñam bokkaloon jamono itam loolu lañ daan def ñu baax ñu nekkoon ci ginnaaw moom lañ doon def mooy di woor su wori jotee ñu wori kon nag nañu xam ne li ñuy def doonul lu woyof lu diis gann gann la nañoo xam ne lii ñuy def soko do def su ëllëgé bu ñuy tàbbi aljana ñun ñi wor dañoo am suñ buntu bop bo xamne fa la ñuy jaar ñun rek ño fay jaar lool hadith la inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu yadkhulu minhu as-sa'imun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum neena ñi wor ño fay jaar kenen du fa jaar fi za daxalu uxliqa falam yadkhul minhu ahad bu ñu duggé dañ koy tëj kenen du fa jaar mom na serigne bi di wax naan li anna fil jannati baban la yaqit fii siwa ahli siyaami fahtasib kon nag fexe ba bokk ci mbooloo may jaar ci buntu boobee eh, eh, jar na woor ak lu mu metti metti ak lu mu tàng-tàng nañu xool xam ne tam jaamu yàlla day yokk pas-pas day yokk ngëm boo dee woor sa pas-pas day yokk day gën a dëgër nañu xam ne koor day jàngale jikko muñ te muñ day jikko ju tedd looy sàkk lu mën a doon soo muñul doo ko am booy wut yàlla soo muñul doo ko am sooy wut àdduna soo muñul doo ko am sooy bay sooy jaay sooy jàng loo mën a def soo muñul doo ci jot kon nag nañoo xam ne koor mook muñ moo moo ànd kon day jàngale muñ koor day jàngale jihaadu nafsi ndax sa bakkan lam gënoon a bëgg da nga koy xañ ndaw bi bu gisee sedd euh, da koy xañ boppam bu gisee tàng da koy xañ boppam waxtu wam koy sañ rek mooy waxtu wa yàlla santaane loola day jàngale jihaadu si koor day jàngale wéet gore wéeti lu ko gore ndax soo wéetee loo mën a gis te bëgg ko doo ko sañ laal kon soo wéetee da ngay gore ni nga goree bi nga nekkee ci biir nit ñi soo wéetee itam da ngay gore koor day jàngale euh, xol bu toj ab jullit rawatina taale bi xolam dafa war a toj bu gisee ku war a yërëm na ko yërëm mu war war a gis ku mu war a dimbali na ko dimbali soo wooree nag euh, ànd ak xiif ak mar dangay xalaat ne am na ñoo xam ne ñoom ci lii la ñu dëkk am na ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer am ño xamne xam ne bu ñu reeree duñu añ amna ño xamne dañuy gobar jaay si door añ reer am ño ñoo xam dañuy xey duggu dëkk bi di wër ba sonu doora am luñu añé soko soo ko sa xol dana toj te sa xol bu tajé tojé dana tax ngay dimbalé ñi nga tane koor nak day tax sa biir noppulu oto sax buy daw ba jëmmi jamono dañ koy yobbu ca barab bi ya nga xamne fa lañ koy wiidé dañ koy wiidé nitam biiram dafa war noppulu ndax di lek di naan rek fukki weer ak benn war naa am weer woo xam ne dangay noppal sa biir te docteur yëpp maase nañ wax ci ne koor day tax a wér loolu xadis waxoon na ko ne suumu tasixu boo dee xiif da ngay not sa bakkan bakkan xiif moo koy not ku baax ki nee na fa nafsu bil ju'i tawili tusjanu wa ma laha qaydun siwaahu yu'lanu ku baax ki mos naa laaj mag ñi ne leen ku ci am daaba bëgg sëf bëgg sëf te muy bañub sëf ana nooy def ku ne wax xalaatam mu ne loolu day baax na waaye la ca gën a gaaw mooy da ngay wàññi xontam yokk sëfam dangay ngay wàññi ab xontam yokku sëfam boo ko defee mu ne nuut kon boo yoree daaba bëgg sëf muy bañ wàññil xontu ba te yokk sëf ba boo ko defee mu ne nuut doomu aadama ji itam koor dañuy wàññib xontam mooy day xëy fajar ba jant su du lekk te dañuy yokk sëfam mooy jaamu yàllaam da koy yokk la muy jàng alquran day yokk la muy jàng xasida day yokk la muy naafile day yokk kon dañuy yokk ab sëfam waa wàññi xontam su ko defee mu ne nuut moo tax jamono jii ndaw ko ndaa yëpp ñu ngi ne nuut ñoom itam kon koor daal day loo xam ne nañu xam ne lañ ca mën a jànge lu bare bare bare bari la weer la woo xam ne nag bu ñëwee bu kenn defee ne rek da ngaa war ne yàcc ndax yi gën a rëy ci lislaam de ci koor la xewoon muy lu mel xare batar ci koor la xewe woon te dem ca jabar jabati jaay moo gën a yomb xare ji batar euh, dem ca tooli bay moo gën a yomb xare ji kon koor bu mu dox sa diggante ak liggéey lu mel ne tam fatxu màkkata tam ci koor la xewe woon bu ñu wooree ba wori nag kenn ku ne jox sa mbokk loxo ne ko baal ma te soo koy baloo àq na ca fas lépp loo ko ameel fas ko ca moom it bu lay baal na ca fas lépp loo ko ameel su ko defee kenn topp sa moroom dara nañuy balante xaq ci bisi iid yi ak dul bisi iid yi nga cay fas lépp loo tooñoon kalee baal tam fas ca lépp loo ko tooñoon soo ko defee rek àq du dox suñ diggante am na nag yuy xew ci koor yoo xam ne waxtu wi du ko mate waaye dañ ci jukki tuuti rek mooy lu mel ni suukari koor yi nga xam ne dañ koy joxe lu baax la di ko joxe lu baax la waaye nag àgg na foo xam ne ci fitna am na ñu muy metti ci ñoom ñi ci ñi ci joxe ay takkaay di ci joxe ay ay ay ay ay ay yére yu yu yu yu gànjaru loolu lu diis la ci boroom kër yi nañu ko euh, bàyyi xel euh, koor tam doon na loo xam ne su ñëwee euh, da ngay xam ne yaa ngi ci weeru koor nga sàmmanteeg woor may weeru koor am na ñoo xam ne nañ nañ nañ daan solo bu dul Ramadan bu Ramadan ñëwee itam noonu la ñuy soloo kon nag bu Ramadan ñëwee. soxna yi na ngeen gën a fonk col mu lislaame na ngeen gën a fonk col mu nuru colo maam jaara doon ku yiw koo xam ne ku la gis xam ne kii dafa woor te fexe ba bu ñu wooree tam nga fexe ko wéyal waaye fexe yiw fexe euh, sellal ba ñu woori nga mel ni lay ñu sànn ca lag ba euh, euh, nga mel ni lëg sànn ca lay ba doxe na la neex loolu képp ku ko def itam day wane ne kon sa koor bokkul ca koor ya ñu nangu moom daal yi nga xam ne yu ñu mën a jàngee ci koor la yu baree bare bari la waaye jataay bi du ko mate xaj na ajuma ji ñëw ku fi toog ci sunu bokk yi dana ci gën a dikk gën koo yaatal ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo nu may nu fekke daaw fekke ren yàlla nu may nu fekk déwén yàlla mi nu may wér ak kàttan ak xéewal ba nu mën koo woor ba agsi fii yàlla na yokk wër gi yokk kàttan gi yokk xéewal yi ba ñu mën koo yeggale te mu nangul ñu ko sunu sunu kilifa gu mag gii na ci sunu kanam te mat ko mate ko sëkk di sagub lislaam yàlla gën koo sàmm gën koo mayu wér guddal aw fanam ba lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te ànd ko ñun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.